yaay ja gaaw te gën waaw salaamaaleykum euh, maa ngi leen di nuyu euh, di leen di masawu ci tàngaay bi ak naaj bi ngeen dox te vraiment bu ma sañoon ñun ñu ñooy déplacé ñëw ba bari ñi mais nag xëy na nii la ko yàlla dogalee euh, di jël nuyoo bi di ko toj ci présidente mu nuyu ma présidente yi mu àndal yëpp ñu fi jóge bari ñi tey ñëw fi euh, balaa maa tàmbali sama kàddu nag euh, damay gërëm saam Euh, saam nit ku baax la euh, saam nit ku woyof la saam nit ku ubbeeku la nit ku ñàkk kiñaan la nit ku oyof la te nit kenn du ko lekk kenn du ko naan liñ koy doyee mooy njariñ te saam amal na nit ñi njariñ te day daw guddi ak bëccëg vraiment euh, ci madame Guèye lañ xamante mais bi ñu xamante ba léegi daa mel ni maa moom ñaar fukki at lañ xamante ndax jikkoom ndax nangoom ndax oyofam daanaka maa ngi moom dañoo nuroo jikko moo tax yàlla yàlla yàlla boole ñu nii waaw ñu ñun nii lañ yàlla bindee buñ xasee dugg ci dara rek dañ koy def jaamu yàlla voilà euh, moo tax maa ngi leen di sant euh, di leen gërëm di am mbégte lool ci seen dikk fii euh, comme ni ko saam waxee yaay Dia Agro dafa nekk benn GIE boo xam ne madame Guèye daf ko taxawal madame Guèye nag li tax mu taxawal GIE bi euh, dañu waxtaan mu ne ma tumaane maanaam ah, mu ne ma dafa mel ni dama am suma benn mission boo xam ne dama ko doon dox te dafa mel ni mission bi day bëgg a tàmbali ma ne ko mission wu lan la mu ne ma euh, yàlla daf ma mos a nattu lépp lu mu masa am euh, dama koy dellowaat askan bi malgré jaar naa fu ne lu ne jaay naa ko fu ne dem naa ba yàlla suñu borom may ma may dëkk bu ne dem naa fa def commerce indi lu ne mais dama daan am habitude su ma musaana tukki suma ma sama xarit yi ñu dem Chine wala dem Dubai dem fenn indi marchandise indi seeni conteneur ñoom dañuy jaay dellu man dama koy lebalee di ko bëccëg ñii fay ma ñii duñ ma fay su ma demee ñu ne ma yow daal yow bëggoo dara ma ne wax ngeen dëgg mais bu ma demee tamit rek dootuma ko mën lebalaat ko jigéen ñi toppaat mu ne yàlla suñu borom dogal may def noonu di def noonu Euh, yàlla suñu borom dogal mu dugg ci affaire suuf di am entreprise di di am ay terrain di tabax di jaay teree di la ko tabaxal am benn entreprise entreprise ma nga nekk fële cité kër góor ci laa nekku di yëngu di yëngu di yëngu ay ati at euh, yàlla suñu borom nag ak mbaaxam yàlla mooy boole góor ak jigéen boole ma mu mu Gueye meeru Jidda Caare ko tey bi nga xam ne mooy directeur des domaines boole ma ak moom mu nekk suma borom kër Euh, bi ma toogee xool ko gis ci li mu nekk gis ko am yërmande la gis ne Mamadou Gueye ku bëgg waaw góor la ku bëgg dimbali ay nit la te ku sonn ci ñi muy àndal la euh, te ma xam ne développement ak social dafa ànd ak tey politique ma ne pourquoi pas ma takk sama ndigg ba mu dëkkër fas yéene jàppale sama borom kër bu tegee fii tànk ma teg fee tànk mais nag euh, dama bëgg ànd ak ay nit yoo xam ne dama bëgg ànd ak ñoom liggéey mais vraiment ñu mel ni yow ak ñeneen ñu mel ni yow genre saam ak ñun ñi bëgg naa ñu créer benn équipe boo xam ne dafa am lu ma bëgg a taxawal moo tax ma lay sama mission jot na ma ne ko waa sa mission jot na mission bi yow na nga ko nar a liggéeyee mu ne ma damaa bëgg lépp loo xam ne dafay ñor fii ci Sénégal te nit ñi di ko jëfandikoo ma fas yéene ko jëndi su ma ko jëndee ñu transformé ko buñ ko transformé ba pare ma jëndaat ko ci ñoom lii ma bàyyi ko fii Sénégal ci grande euh, entreprise yi grande surface yi comme genre Auchan yeeg yu demee noonu leneen li ci des ñu yóbbu ko Europe mais ci kaw loolu nag il faut mu am ay groupement de femmes yoo xam ne damay damay damay liggéeyandoo ñoom pour mën leen jàppale parce que li ma euh, dafa am euh, dama seetlu ñaar am lu ma naqari ma ne ko la moo la naqari mu ne ma dama seet li ma naqari mooy damay dugg avion ma gis suñu bisaab beek suñu buy beeg suñu jinjeer bi suñu réew mi lañ ko jëlee dem defaraat ba pare ñëw dañu ko jaayaat léeg-léeg ñu def ci ay produits chimiques wala bio kenn wóoratul man kon loolu di dëgg la mu ne beneen bi ci des tamit dama gis ni jigéen ñi maanaam dañ leen defal formation ci juróom benn weer moo xam at suñu jàngee ni ñuy transformé céréale locale ba pare ba jàngi métier bi maanaam dañuy demaat toog parce que la moo tax dinañ am xam-xam bi waaye maanaam matériel ba koy liggéey duñ ko am produit bi tax ñi ñuy produire duñ ko am maanaam dañu am xam-xam rek dem toog mais duñu am moyen ñu ko exploité léegi nag dama bëgg ñu taxawal benn usine usine bi buñ ko tabaxalee ba pare dañuy jàpp bu ñu formé jigéen ñi ba ñu mokkal liggéey bi dañ leen di bu ñu leen téye indi ay machines yi nga xam ne mooy transformé ñu ciy liggéey ba pare ma mboolem produit bu ñu liggéey man maa koy dem jëndi indi ko produit produire suñu paree bu dee ay groupement de femmes yi am nañu ay ay seen cantine wala seeni GIE ak yu demee noonu ñoom nañ dem di ko jaay maanaam li nga xam ne yow yaa koy liggéey mu sell nga xam ne ci anam bu sell nga xam ne loo xam ne naturel lay doon ba pare yaa koy consommé lii maa ko liggéey maa ko yóbbu sama kër jë jëriñoo maa ko am sax mu ne ma léegi du ñu xaar loolu parce que loolu day yàgg bu ñu naree defar usine di xaar day xaw a yàgg léegi damaa bëgg ñu am ci loo xam ne dañ koy tàmbali ma ne la mu ne damaa bëgg ñu def ci ñetti type de financement na ko waaw mu ne lan damaa bëgg mboolem koo xam ne yaa ngi jigéen loo xam ne day xëy teg taabalam di jaay ndékki moo xam restaurant la yor di jaay ay añ wala muy jaay ay reer maanaam moo xam ay beñe lay defar ak yu demee noonu ñooñu dañuy fexe nu ñu leen organiser suñu leen organiser ñu fexe bu dee ceeb muy diwlin muy suukar muy meew muy kafe tuuba muy maanaam lépp daal loo xam ne day dem ci cin ba ci omo madaar ci omo euh, liquide bi ba ci ba ci dugub ba ci mboq ñuy defar caakiri fonde ak laax mboolem daal lu jigéen di liggéey ñu fexe nuñ ko ko financé suñ ko ko joxee muy jaay ñu xool ca anam bam ko mën a faye te du metti ci moom chaque jour muy verse bu jeexee ñu dolli laat ñu di ko dimbali nga xam ne doo fi nekk di jël ay ñetti kilo suukar léegi café bi jeex mu dem ci boutique bi maanaam liñ koy def dañ koy def loo xam ne moom dañ koy jox ay moyens pour muy mën di jaay su ko defee mu xool nan lay verser versement boo xam ne du metti ci moom